Touba dafa nekk ci Sénégal dëkk bu spécial pour plusieurs raisons li tax mu dëkk nekk dëkk bu spécial mooy dafa fi am kilifa gu mag boo xam ne man dama am privilège maanaam dama am mbégte ñëw mu dalal ma ñaanal ma ma ne woon bu ma taaloon sama oto dellu sax sama mébét yàgg na donc kooku kooku boo amee privilège mu recevoir la nga dem ci sëñ Moussa Nawel moom la mu wax maa ngi hésité pour wax ko wax naa ko ci français moom moo ma ne maa la jàppal sama bopp waxul loolu mu taal téléphone am ah très bien waaw mu taal téléphone am woo wax waxtaan ak Youssou mais ñun yéemu gi ñu yéemu rek ci visite bi te yuusu nañu lii sëriñ bi rek moo tax ñu koy def yéen dangeen di ganu sëriñ bi da di ganu sëriñ bi kër gi ñu leen dalal ñun sax duñu fi dugg dañu koy surveiller rek di ko defal wante doo gis kenn ci ñun toog ci law lal toog ci sees ci kër gi parce que ganu sëriñ bi rek moo fi ñëw alors donc di sant sëñ yi mi nga xam ne universitaire la waxtaan nañu avant mooy egg fii ci université bi ci programme bi foofu la ñu njëkk a dem ñëw gii nag loolu xeju ci parce que commencé nañ ko wante dañ koy yeggal li dafa nekk surtout chantier loolu xam nga infrastructure la mais dafa nekk aussi xoor curricula maanaam njàngale mi programme bi di ñu ko tëggee parce que dañu am dénominateur commun mu yore université ban ma yore université donc loolu moo doon sama ñëwu Touba tey bi mujj nag mooy fekk si leen yéen ñii di waxtaan ak yéen ci lu gàtt ci parti bi ni mu tëddee ci statut parti bi ci njaayum carte mi ci élection yi ñu dëgmal loi boobu ñu dëgal assemblée nationale euh, boo koy seetlu loi bi daf ne dafa am rek loo xam ne amoon na parce que loi boobu da amoon na ah, presque dara changé wu ci wante nag li ci changé mooy li ñuy wax terroriste nit mooy nekk terroriste mais pour nga nekk terroriste faw nga am ay jumtuwaay faw nga am boog ay ndell wala leneen wala leneen mais loolu dafa am xaalis bu mu jar mais ñan ñoo nekk ca gannaaw di la financer loolu du nit ki personne morale bi la parce que dafa am personne physique mooy nit ki am personne morale bi muy société muy école muy parti muy leneen ñu ne fa ñuy sanctionner nit kooku ñu ne terroriste la dañoo war a mën a sanctionner ki nga xam ne moo ko dimbale pour mu am yooyu te loolu Sénégal daf ko signé il faut mu corpus juridique mu dugal ko ci biir mënoo koo ñàkk def dafa mel ni rek nga signé dara ak euh, sa nawle réew te yow sa loi amutoon loolu. mais di nga fexe ba dugal ko ci biir. xam nga loi dafa am la traité moo nekk ca kaw constitution tegu ci traité yi moo gën a fort constitution maanaam li nga séq ak sa nawle réew moo gën a fort sa constitution yow constitution tegu ci loi organique tegu ci loi ordinaire tegu ci décret présidentiel tegu ci lu arrêté yeeg yooyu door cee tegu. marche constitution la lii ñu voté loi la doo ma wax ne nag euh, loi bii moo gën a for constitution bi donc comme constitution bi nee na ku am lu lu bugg a mu bugg a ñaxtu mun na marché te constitution bi kenn laalu ko loi bu ñu munti wote munte fexe ba def lu nit ñi lu constitution bi deful donc xam nga loolu amul problème maintenant kenn du voté loi pour Massamba wala loi pour Mademba dañuy voté loi rek pour ñëpp parce que boo nee loi bi dañ ko woteel opposition mais ñu nekk fii di actuellement ci pouvoir bi ñoom oppo démb ak barke démb opposition la ñoon dama lay wax rek man sama cas personnel ñoon sax mën nañu wax de depuis 2012 ñu ngi ci pouvoir bi mais man barke démb rek laa jóge ci opposition ñëw ci euh, euh, ñoo nekk conseil président de la république donc nee naa loi boo ko defee defaloo ko ma Samba defaloo ko ma Demba ñëpp nga ko defal. candidat du Touba. candidat 557 collectivités locales yi. fu ñu fi mun a am am candidat dinañ fa am candidat fu ñu fi mun a am candidat dañ fa am candidat léegi fu ñu dem nag yaakaar ne bu ñu booloog nit dinañu am candidat mais ñu booloog nit bu fekkee ne mun nañu ñu dem élection euh, du da nga war a dem rek gagné wala da nga war a dem rek perte parce que parti li tax mu jóg mooy nga dem élection donc man mënuma comprendre parti bu taxaw te demul élection donc élection yi ah defe naa li ñu gis fii daal te yaakaar naa ne ñu taxaw fii ay responsable lañu. fii woowuñ fi benn woowuñ fi militant. militant yi nga toog seen kër. ay responsable lañ fi woo. yaakaar nañ ne responsable yi bu ñu defee la ñu war a def ah bu doon benn conseil wala ñaari conseil sax la ñuy am Touba xanaa dañ ko war a am